salaamaaleykum fii ci SBT Média nuyu naa leen tey ñu ngi fii ci Golf Sud ci xew bi nga xam ni xew Balla Gaye numéro 2 la di tudd doomam tuddee ko ki nga xam ni mooy Serigne Saliou tey ñu ñëw daje fekk ki nga xamante ne nii xaritam la doomu ndayam la am di jàmmam magam tamit teg ci euh, di liiru Diane yàgg ci làmb di champion bu mag tey ñu ñëw fi fekk ko fi Lirou nuyu nañu la. waaw maa lay fay doom nday. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa sant yàlla baax ñu leen laa rek kóllëre gi dox sa diggante ak tey ba tax nga bàyyi sa yitte yëpp ñëw fii tey ci bësam bi. Euh, fekk doon ma Lirou Diane loo fi def Balla suma rakk la sama xarit la sama doomu ndey la sama lépp la man maay seen mag ñu jël ma jiital ma teg ma ci kanam may monument Guédiawaye kon nag loolu sant yàlla la su amee bis bu mel nii maa fa war a jiitu balaa kenn ñëw maa fa war a jiitu ndax sama rakk la sama xarit la kooku yàllaa ko def tey nag li mu def dafa rëy man damaa daanu sànq dama jooy ndax li tax ma jooy bi ne doomi Touré nañ ko Serigne Saliou bettu ma dafa bëgg Serigne Saliou bettu doom ji yàlla màgg ba mu fekkee njëriñam ba mu koy móodu ñu koy yóbbu euh, màkk amin ba mais bu ñu ñëwee ci euh, biir xew bi nga xam ne mooy xew Balla Gaye numéro 2 dañ fekk sa adversaire mm-hmm. fekk fi ki nga xamante ne nii da ngeen signé contrat war a bële muy wulli te ñu jàkkaarloo ak moom mu ne monument bi nekk biir waay moom moo ko war a daaneel waaw day wax lu ko ne xam nga lii lépp li ko waral xam naa ko ay la pour jaxase ba dégg ko Balla Gaye li mu wax Balla Gaye nee ko loo fi lekk riba loo fi def riba kenn invité la kon affaire loolu du dara amul problème garaawul man loolu dafa ma bëgg a taxal tuur xana jaxase sama xel waaye mënu ko tuuti na ci maa ko mag maa xel fu may gisee ak Balla la may seq ak Balla an la may dugg Balla fekk ko ci lan moo ko tee ñëw gàmmu gi ren kër Aziz Ndiaye looloo jar a laaj lan moo ko teree ñëw gàmm kër Aziz Ndiaye wax ma ko looloo ko teree la looloo looloo. nee na moom yow mag nga moom xale la te bëre xale ak mag yamul ndax Balla Gaye bi fi yëkk ni doone mag daf ko def comme wan ko ni xale la te moom nee na moom xale la dañ ko daan wulli nee na moom moo fas yéene ñëw nag wulli yi ñu daan wulli mu wulli la ko yow gis nga ma xamala la benn affaire xam nga dégg nga léeg fan yi may wax ay journalistes yoo xam ne ñoo nekk ay saytaane bul fexeel ba bu ma la ci boole. non non fexeel ba bu ma la ci boole rek ndax soo taxee naan ma mag nga dafay nuru leen dafa mel ni wulli da laa yónni. waxuma ko de waxuma ko de dafa dama dafay mel ni wulli da laa yónni ci man yow. waxuma ko wulli moo ko wax. non wulli lu mu wax na taxaw ak ma wax su ma taxaw ma duma ko su taxee wax ma loolu ma duma ko laa wax nii su bés baa di xam ne man mag laa wala du ma mag man li may liggéey moom munu ko foo toll ci liggéey bi ak travail bi ak entraînement yi. parce que Cheikh Ahmadou Bamba su doon suba suba mu bëre je te le jure su doon suba suba mu bëre man damay sant yàlla ndax euh, li ma uuf ak li ma boot moo bari kon nag sant yàlla ñu nekk sama ginnaaw bari. kon nag damay sant yàlla man maay mu ni maa géej yàllaa ko def autorité mi nekk géej yëpp man lan àndal nekk sama ginnaaw ma jàppale damay sant yàlla. mais wuli leen day daane monument bi de. Euh, munu ko day wax lu ko neex tuuti na ci tuuti na ci daane xeex dóor mu daan dina ci am. waaw maa la wax lii bëgg xeex fi la may fekk. barki Cheikh Ahmadou Bamba door ma daan dina am man maa la wax lii ci làmb ja ba bis noo gisee SBT Média site boobu. barkal SBT Média SBT Média ci kaw ci kanam. laa ilaha illallah mu rasulullah sallallahu SBT SBT Média ci kaw ci kanam seen site bi deen ko dégg ca kaw ga man xanaa xamul site bu ma wax taa mu tàkk. waxatal site bi. SBT Média. SBT Média xanaa xamoo man site bu ma wax mu tàkk ñu dégg ko ci kaw xanaa ma loolu. yow xanaa xamoo loolu. waaw looloo am waxal dégg waxal kii. jàmbaari borom Tuubaa ji Xaadimu Rasuul. kii mooy buur kii lu mu wax ci Balla Gaye la. ndax démb la tey soog a ñëw. yéen it fa tabaarakallaahu ngeen ñëw def ci taxawaay bu rëy. bala nag bisam du tuuti. ndax kenn ku nekk. Mhm. fa tabaarakallaahu sa bis yow rek lay tollal. yaatu na yiw na yaatu na yaru na fa tabaarakallaahu kon liiru. waaw sunu xol sedd na. dëgg la dégg nañu ci soo ba léegi ñoo ngi wax dañoo sonn. ku baax la nii ku doomu ndeyu Balla Gaye 2 di nuyu sama doomu nday jéey seen at seen Modou Seye borom tawféex dafa maa defal lu rëy surprise barki Cheikh Ahmadou Bamba ne ma bu ko wax kenn ba ma la koy jox seen Modou Seye borom tawféex borom baax la maa ngi ñëw ku baax ku gore. sama doomu nday jéey seen ñëpp maa leen gërëm di sant man maay mu ne maa géej way Aziz Ndiaye Baye Ndiaye Masata Ndiaye tout ñëpp. Baara Gueye King Oil ñëpp képp ku dëggee way at Modou Mbacke sama doomu nday baax yaay couture maa ngi gërëm ñëpp bàyyiwuma kenn diaspora bi bàyyiwuma kenn ñëpp maa leen gërëm. Ama Baldé Modou Lo loo ciy wax. combat bu neex la combat a taxaw ñi il ñu wàcc may xale yi saas ñu bëre lamb ji ubbeeku lamb ji ñeex Amath Sène euh, saa kees ko dàq Balla Gaye Boy Niang lu ko dàq <laughs> kii nu mu tudd Ama Baldé Modou Lo lu ko dàq Tapha Tine Lac de Tapha Tine euh, Gris Bordeaux combat la Tapha Tine euh, Gris Bordeaux Lac de Guiers combat la ay combat yu neex ñoo fi nekk yu war a taxaw Reug Reug Bombardier combat la mag xale yi mag ñi ñu wàcc may xale yi sens lamb ji neex moo beeku euh, voilà merci beaucoup ñu koy jaajëfal mu nekkoon Lirou jaan tey fii ci nga xam ni mooy di waaye Golf Sud si ngente ki nga xam ni mooy Balla gay 2 nee naa leen tey dara du leen ci rëcc ci dara dara dara du leen ci rëcc xaar leen ma ci site boobu SBT Média mu ngi noonu ay sa Thank you